dañuy jàngale rek mbindu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu waaye léeg-léeg nag ñu indi ci ay leeral bu fekkee na aajoo na ko eh, bu fekkee lu laal diinale it ñu ñëw ci xam naa damay ñëw direkt tey li ma tax a jóg mooy tontu benn waay bu ñuy tuddee Fadel gay Fadel nag eh, benn Ebadu la muy waxaa bisti la dafa am benn wax joo xam ne daf ko tuumaal Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu dem ci benn téereem bu ñuy tuddee lakk bar waaye tuumaal ko it benn pas-pas wala ne pas-pas boobu mooy pas-pas bi Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu tasaare fii ci senegal tasaare ko ci bitim réew te bàyyi ku ne xam ne ne yéen ñépp ni ngeen ko xamee wal ummatu qasdi fii imu an asuuquhum la waxoon ilaa adrati barru rahibi ilaa ina man sama euh, maanaam mission mooy ma tàllal xam-xam gindi mbindeef yàlla yépp waxoon na sax ne duma am noflaay mukk féeg ci kaw suuf ñu ngi fee mooy yàlla kon kooku loolu taxut ko woon a eh, ñoom nag ci seen site biñ tuddee alqa alquran ak sunna <clears throat> ñu indi fa ay wax xam naa dama leen di dégteel rek wax ji nga xam ne tuumaal na ko Cheikh Ibrahima ba noppi ñu doog a ñëw ci leeral yi pas-pas yi nga xam ne bàyyi na si bokk nañu ko dundal ci sunum ak ci lenn ci wala yenn réew ci Afrique sowu jant muy pas-pas waxdatul wujud muy pas-pas boo xam ne dañ ko jëlee ci yéeféer euh, ba lislaam ñëwee am ay nit ñu fésal ak lislaam dem ci kéeféer ñu ko jël dëxañ ko ci biir lislaam ngir yàq lislaam ba mu egg ci Baay Ñas mu ne dundal ko bu fekkee ne Baay Ñas mu jaddid la laa shakk ni nekkul mu jaddid ci tawxiid mu jaddid la ci ak kufur bu nekkee mu jaddid la nekkul mu jaddidu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu jaddidu planton lay lay doon waaye du mu jaddidu yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam ndax lii nii mu tajdiid yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ko amut sax lu mu wax lu junj loolu ay saxaabaam tamit xamuñu ko euh, xamuñu ko xamuñu ko woon euh, kon ñoom waxdatul wujud bi mooy nit ki su fekkee ne kon jazb nañ ko ba mu egg ci loolu ci fatabax ba mu egg ci fannaawu mooy day egg ci xadara bi nga xam ne day jonoog day jonoog xadara bi nga xam ne mooy xadara waxdatul wujud moom su fa eggee dootul ràññee mbindeef bi ak ki nga xam ne moom moo moom moo bind mooy ne lépp rek dara amul la dul yàlla foofu lay egg mooy gifannaaw mooy nañ ko kiiraay yi nga xam ne moom rek moo ko yóbbu woon mooy jàpp gu mu jàppoon ne leneen am na ko du yàlla moo ko yóbbu woon ñu ko dindalee kiiraay googu mu xam ne lépp yàlla la mooy fannaaw a léegi mooy yàlla rek moo fi am xañ beeg comme ñenn ñi koy waxee xaj weeg mbaam bi du lenn lu dul yàlla nettali yo euh, mbokk yi <clears throat> yaakaar naa yéen ñépp ko dégg dafa wax ne Baye Niass radiallahu anhu dafa am benn pas-pas boo xam ne pas-pas bu mu wisaare la fii ci réew mi mu ne bu fekkee ne dañuy wax ne Baye Niass mujaddid la tamit mu mujaddidu kufru la maanaam dafa beesal ak yéeféer ndax pas-pas bi mu tasaare mooy pas ba pas-pasu wahdatul wujud ñoom nag niñ déggee wax wahdatul wujud wax na ko ca mujjanteel ba mooy wane ne bàyyi dafa wax ne lépp yàlla la masalan nit ki yàlla la mbaam mi yàlla la xaj bi yàlla la xar mi yàlla la comme niñ ko waxee léegi nag euh, duma guddal sax foofa damay génnee benn waxu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu bu ngeen demee ci paas Fadel ngi lay yebal yaag sa mbokki ibaadu yi ngeen dem ci jawaayiru rasaayil ci paas 116 paas 116 mu ngi nii page 116 bayt yii ci suuf wax la joo xam ne sufiyan benn sufiyanke moo ko wax wax jooju nag ngeen wax ne bàyyi Niass daf koo dëggal maanaam Baye dafa wane ne xaj bi yàlla la nit ki yàlla la mbaam mi yàlla la lépp yàlla la wax jooju nag ngir dind ci ay tuuma du ñun sax ñoo ciy dindil tuuma Cheikh Ibrahim Baye dafa wax ne bi muy nettali wax ji dafa wax ci wax ji ne Eh, maanaam bim nettalee arabbu xaqun loolu la waa ji wax maanaam jaam bi dëgg la masalan ngeen koy firee yéen jaam bi yàlla la wal xabdu xaqun maanaam arabbu xaqun yàlla yàlla la dëgg la wal xabdu xaqun jaam bi dëgg la mooy maanaam jaam yàlla la yaa layta siar yi yellantu woon na maqam manil mukallaf ana kan la ñuy togg jëf in qultu xabdu su ma nee jaam la fal abdu maytun jaam bi dafay dee aw qultu rabbu bu ma nee yàlla la yàlla naka lañ koy toggee jëf léegi nag lii du waxu Baay Ñas Baay daf koo toxal bi mu toxalee wax ji léegi ci suuf ngay xamee ndax Baay pas bii la am wala amul pas-pas bii mu ne lakin al xaq anna rabb laysa bi abdin wala abdu laysa bi rabbin Baay mu ne lakin li am ba des alxaqu lay dëgg te wér mooy rab ba naka yàlla laysa bi xabdin du jaam bi wal xabdu te jaam bi it laysa bi rabbin du yàlla mu ne waaye nag wa zalika alladi yasixu an yakuna xabdan huwa al kawnu li nga xam ne mënees na koo tuddee jaam loolu mooy kawnu mos naa koy fiir ci sama yenn wax kon lii du Ñas ànd ak waa ji ci waxam Baay nag radiyallahu anhu pas-pas bi mu tasaare ñun ñëpp am nañ ko muy tawhid bu wér am na benn lettre bu mu bind benn taalibeem boo demaatee ci Jawaahir Rasaa'il ci page 92 mu ngi nii page 92 mu ngi nii boo demee ci page bi bàyyi dafay wax ne summa inni ukallifuka taalibeem bi lay wax loolu maa ngi lay togg an tajma al ixwaana nga dajale mbooloo mi yépp masalan arrijaala minhum wa nisaa góor ñeeg jigéen ñi yépp na leen dajale wa qul lahum inni askurukum inni uzakkirukumullah nga wax leen ne leen maa ngi leen di fàttali yàlla wala ahdu alladi bayni wa baynahum ak kóllëre gi nga xam ne moo dox suma diggante ak yéen kóllëre googu moy lan fii an taquumu fii ma amara allahu taala ngeen taxaw ci lépp lu yàlla digle bi imtisaalil maamuraati ci tem moo ndigali yàlla yi wectinaa bil manxiyaati ak teet tere yàlla yi wa quumu jamian bi taamiri baytillaahi ngeen taxaw yéen ñépp di dundal néegab yàlla bi dundal leen néegab yàlla bi bil waajibaati wa hiya salawaatul xams wal lil wasifa waaye maa ngi wax ne maa ngi feddal it ne képp ku nekk ci ab dëkk jumaa ne fa na ngay dem aljuma di julli jumaa bu bàyyi benn yoon jumaa bi mu demee ba ci jeexantalu lettre ba dafa wax ne wa ala nisaa'i maa ala rijaali li war góor ñi moo war jigéen ñi waaye nag maa ngi ciy dollil jigéen ñi ne leen nañ topp seen jëkkër dox ci seen ndigalu jëkkër waaye kenn ci ñoom bu mu topp ndigalu jëkkëram ba mooy ndigalu yàlla lii mooy li nga xam ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu wax na ko waaye moom nag am na beneen wax mooy dafa dem ci benn téere bi ñu tuddee lakk Akbar déglu leen li mu wax ci sirul akbar bu Baay Ñas ci loolu la ñuy tuddee ci seeni yenn islaaxaat soo demee ci sirul akbar ci page 420 ba 421 Baay Ñas mi fay leeral lii daal xaqatul muhammadi mu ne وإذا صح المريد من الفنان يشاهد حضرة وحدة الوجود يرى فيها الوجود قطعة بارزة من الذات بعدما كان لا يشاهد إلا إزاها فيرى الأشياء على تعددها وتباين مرتدها على تعددها وتباين مراتبها على حد سواء وبعد ذلك dégg nga dafa tudd benn téere muy sirul akbar mu ne boo demee ci sirul akbar ci page 421 maanaam maa ngi xamal Fadel na ko siru lakk Akbar amul paas 421 Sirul Akbar mooluñ ko sax gis nga mu ngi nii eh, numéro 1 yéen ngi nii jàkkaarloog moom bii mooy paas bu njëkk bi ci lakk bar dernier paas bi ci Sirul bar moo nekk nii muy paas 51 gis ngeen ko kon 51 paas la Sirul Akbar ci yiñ bindee loxo. bu dee ci yeneen bind la yeneen bind yooyu munta bari bari ba ëpp cent paas ta nekk moom nag mu ne boo demee ci lakk bar mu ne ci paas cinquante ci paas cent cinquante un mu ne wala ci paas quatre cent cinquante un soo fa demee danga nga fa fekk wax ji mu nettali maanaam mu ne bàyyi na sa radiyallahu anhu li mu wax ci wahdatul wujud kon loolu premièrement amut xam naa nag damaa yaakaar ne eh, mën naa am mu dem ci benn yenn kenn ci taalibe bàyyi rek dal di fa jël wax jooja ñëw indi ko xam nga léeg-léeg nit ñi duñuy bàyyi xel yenn suñu mbokki taalibe yi léegi-léegi dañuy tasaare wax joo xam ne Cheikh Ibrahima def ñoo waxoon ñu nëbb ko waaye ni ko firee moom la mu bëgg a wax mooy bàyyi def ne lépp yàlla la pas-pas boobu laa ko wax ne ko duut pas-pasu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu te duut li mu wax paas bi nga nettali muy 421 page 421 amut ci Sirrul Akbar Sirrul bar mbokk yi benn téere la boo xam ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ku liggéey ci benn bës muy téere boo xam ne mën naa wax ne daanaka ay wax la yoo xam ne rek wax yu ko dikkal la maanaam di xam-xam bu leer ci yàlla tombeeg bisu alxames ci juróom-benn fan ci weeru rajab 1352 bàyyi dafa tere woon ñu mool ko amoon na nag benn waay bu jege woon Nigeria Nigeria di benn waay boo xam ne waaju kàccoor la woon bi mu ñëwee dafa wax ne dafa ñëw maanaam ngir eh, taalibe bàyyi la waaye bi mu ñëwee na taalibe baay la mu ne nañ ko jox yenn xam-xam yi bàyyi doon wax foofa ci la naxante gaañi ci jamono Alaaji Abdoulaye Niass bañ jox ko lakk Lakbar mu liggéey benn téere nag dugal ci siru lakbar ca biir e, waaye gis nga yàlla ni muy def kooku yàlla xalaat na ko ndax lam def waaye ndeke mu doon def yëpp mooy ngir contre baay moo tax Cheikh Ibrahima Ndaw daf ma wax ndeysaan na ma bàyyi tuuti ñas daf daan wax mu ne gaa yi muy ebaadu yi seen paaka bi dafa ñaw lool ku leen mooy tuut mun nañ laa dagg mu ne waaye nag fi ñu jam paaka bi mooy tul mooy mooy baay baay moom der bu tul lañ ko jam xam ngeen ne foofu kenn mënu fa dara Baay Ñas radiyallahu anhu li wax ci surul akbar mu ngi nii def ne jasbu wal jasbu huwal wusuulu nee na li ñuy tuddee jas bu mooy ak yegg ci yàlla waaye tamit wal fanaaw jasbu la ñuy tuddee fanaaw lii nag wal fatxu jasbu la tuddee fatxu lii nag ci mustalahaat bi nga xam ne sufiyanke yi ñoom ñoo ko xam <clears throat> bu ñu waxee jas jasbu ñoom xam nañ mooy lan bu ñu waxee wusuul xam nañ mooy lan bu ñu waxee fannaawu xam nañ mooy lan bu ñu waxee fatxu xam nañ mooy lan léegi nag bàyyi ñas radiallahu anhu di firi wax ne taxqiquhu an al haqa jalla wa ala maa ajjabahu an il muridi wujuda mawjudin maahu mu ne li wétt wér mooy yàlla ci boppam jaam bi dara xiirut ko yàlla maanaam amul benn lu am loo xam ne moo xiir yàlla ba yàlla ba yàlla dootul feeñ maanaam maa ajjabahu ba bal maa ajabahu illa tawahumu wujudi mawjudin maahu mu ne ki nga xam ne dafa yaakaar ne gis na leneen du yàlla wala leneen lu yàlla feeñ na mu ne kooku <clears throat> dafa am lu mu def def loo rek foog ne loolu feeñ na moo tax Baay Ñas radiyallaahu anhu waxoon ci jawaay rasaali ne man lam yas'ad minkum sinema dégg nga fa alayhi walaw marratan waahida képp koo xam ne mosuloo seetaani cinéma ci yenn taalibe yi demal nga seetaan ko donte benn yoon la mu ne foofa soo demee tara sëy an mawjudan wa mafquudan fi aanin waahid di nga gis mbir moo xam ne dafa am waaye dafa ñàkk ci benn xaal maanaam lii am na ba pare ñàkk na xam nga loolu buñ la ko waxee yow boo amul dégg doo ko xam léegi demal nga seetaan cinéma wala xoolal benn filma am na benn filma bu ñuy tuddee King Kong xaw ma benn golo gu mag goo xam ne dafay téye xale bu jigéen bi bu ngeen xoolee film boobu da ngeen gis ne golo gi dafay dugg ci biir dëkk bi bu ñëwee dafay jël oto yi di fàddalante yéeg ci kaw fu kawe di jël avion yi di jàpp xam ngeen ne loolu am na ndax su amutoon du ngeen ko gis waaye xam ngeen ne même temps loolu amul amul benn golo xaqiqatan boo xam ne baabun goo xam ne dugg na ci ab dëkk jël ay oto di ko ay biis di ko fàddalante di daane ay miir di dóor ay bâtiment yoo xam ne dix-neuf étages la ñuy daanu muy jàpp ay hélicoptère di ko fàddalante loolu xam ngeen na xamul moo tax bàyyi mu ne kon loolu wujudu tawahum la mooy yàlla dara feeñut féete ko kaw lii nag su fekkee ne ah, Fadel moom lay weddi damay wax ne Fadel alquran la weddi ndax yàlla moo wax ne huwal awalu wal aaxiru wa saahir wa baatin wa bi kulli seen alim yàlla mooy awalu moom rek mooy awal moo fi njëkk yàlla mooy aaxiru yàlla mooy saahiru saahir mooy lu feeñ yàlla mooy baatinu comme yàlla mooy saahir moo feeñ bu fekkee ne fadel dafa xam dara loo xam ne moo gën a feeñ yàlla te su boobaa loolu nëbbu na yàlla moo tax bàyyi mu ne yàlla kat maa ajabuhu anil muridi wujud mawjudin jaam bi dara liir ko yàlla lu dul maanaam wujudu tawahum rek la maanaam am goo xam ne am ak tawahum la mooy yow yaa ko def def loolu rek waaye amul lépp lu am commencement te amut finition loolu amut xaqiqatan loolu amut lépp loo xam ne am na commencement maanaam lépp lu am commencement am finition loolu amut kon doomu aadama bi dafa ñàkk moo tax bu yàlla waxee ne daw leen fa firru ilallah daw leen jëm ci yàlla ñu bari dañ koy firee daw leen jëm ci kaamilul asri waaye loolu mooy la asri booy daw jëm ci moom wala nga daw jëm ci yàlla yow fan ngay jógee maanaam da ngay daw tafirru minal hadami ilal wujudi da ngay daw jógee ci ñàkk jëm ci am parce que doomu aadama amul xoolal doomu aadama masalan ci misaal bu gàtt bi ko yaayam ëmbee ñu dem ab diir mu juddu ñu ne juddu na ñu toog ba bis ba delsi ñu ne dañ koy ngénte bu ñuy ngénte li ñu wax tuddee nañ ko Habib njaay waaye du Habib dañ ko koo tuddee kon moom turam wi sax amul tuddee nañ ko nangam la ñuy wax kon moom kan la doomu aadama war naa fexe xam boppam boo demee ci xadisu yonentu bi alayhi salaatu wasalaam yonentu bi da wax ne allahuma anta al awalu fa laysa qablaka seyun xadis bu wér la yow yàlla yaay ki fi njëkk dara jiituwul la wa anta al axiru fa laysa baadaka seyun yow yaa fi mujji dara mujjul la wa anta saahiru fa laysa fawqaka seyun yow yàlla yaay saahir dara féetewul la kaw wa anta al baatinu fa laysa doonaka seyun kon awalu axiru saahiru baatinu kim nekk xaqiqa ci moom mooy yàlla moo tax yàlla rekk mooy yàlla dara du yàlla lu dul yàlla waaye yàlla rekk xam nag lu dul yàlla xamut kon maanaam bàyyi bi jàngale wala sufiyanke yi wala Cheikh Tidiane ngeen di tuumal ne day jàngale wahdatul wujud kanaa xamuleen ne Seydina Cheikh radiyallahu anhu wahdatul wujud na mu ko tuddee wala bàyyi ni mu tuddee wahdatul wujud mooy nga kennal yàlla masalan nga xam ne kenn amut ku dul yàlla nga xam ne kenn amut ku dul yàlla yàlla rek moo am lu dul yàlla rek loolu amut loolu bu la leeree mu jeex ñu ne léegi nan la jaam bii def ba yegg foofu bàyyi na fa ida araada allahu istifaa habduhu jaalana allahu min almustafina al axyaari minhu bu yàlla naree tànn jaamam bi boole ku ci ñooñu te yàlla nañu ci yàlla boole mu ne su boobaa nan lay def dafay yëkkati maanaam rufia anhu dalika al wahmu fala yara sey an yaxjubuhu an yàlla dafay dindi wahmu boobu ba jaam bi dootul gisati lu ko xiir yàlla su jaam bi demee nag ba gisatul lu ko xiir yàlla mu ne foofa nag jàmba ba dootul dara dootul ko xiir yàlla waaye li am sax laa yara say an dootul gisati dara al asiya ay yépp dafay fàddu ndax dootu ko gis ndax loolu amut mu ne foofa nag la yàlla wax ci alquran ne yamaxu llaahu maa yashaau wa yusabbit wa indahu umul kitaab lii mooy jàngaleem Cheikh Ibrahima foofu la wax nag fa yina isin yaatiihu sarihul xaq foofa nag la dëgg di yegsee ci moom léegi dëgg di yegg ci yow loolu hadiis yonent bi la léegi soo buggee xam fu yàlla nekk bay ñëw loolu laaj ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yonent bi moo nett li yàlla wax ci hadiisu qudsi ne laa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawaafilil xayri xatta uhibbuhu jaam bi du dëñ dama jege si ci nawaafilil xayri ba ma bëgg ko su ma ko bëggee doon déggam su ma ko bëggee doon làmmeñam su ma ko bëggee doon ay tànkam doon loxoom am na ci beneen hadis mu ne jaam bi su doxee jëm ci man ma daw jëm ci moom su jege see sabre jëm ci man ma jege baa jëm ci moom kon yàlla fu mu nekk ak fi jaam bi nekk mooy jaam bi amam gi duwut am wujudu tawahum rek la moo film bi ngay seetaan ñoo yem film booba ngay seetaan amut parce que xam nga ne maanaam nit ñi nga gis ñuy rey bu fekkoon ne tubaab bi film yooyu ñuy suyee lu mat benn waay boo xam ne dafay jël fetalam rek di rey ñaar fukki junne nit ci Amérique ñu ne film bi Amérique lañ ko tourné wala mu rey téeméeri junne ni wala ndox mu dugg ci biir géej biir dëkk rek raafal ko xam ngeen ne loolu bu amul musiba xew konoon kenn dootu suyee film di waaye loolu wujudu tawahum la kon loolu nag mbir la moo xam ne yaa ngi koy xam amee ci sawku dafa am mbir yoo xam ne tànk góor-góorlu ci yàlla doo ko xam moo tax ñoom dafa am luñ desee lu bari loo xam ne yegguñ fa mooy ñoom mbir yi dañ koy àtte rek ci sawaayiru nusuus yi te yëf yi nag du noonu yëf yi du loo xam ne da ngay jàpp ci sawaayiru nusuus yi rek moo tax ñoom ñu war a uti sëriñ déglu leen ko bu baax ngeen xam ne ba tey ñoom li ñuy weddi xamuñ ci dara te nit ki balaa ngay weddi dara da ngaa war a xam déglu leen ko. ci loolu la ñuy tuddee ci seeni yenn islaaxaat ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy aynul xaq alladi tatajalla fihi uruusul dina doy sëkk ci tudd pas-pasu Belgique rek ngir wane ne pas-pas la woon pas-pasu réer xam ne jullit kuy doog a doon jullit bu ko dégg di nga xam ne liy jugal ci nit bi sa sam jàngale ndax dafa màbbal li tax li tax lislaam jóg mooy xam ne boroom bi rek mooy boroom mooy laa ilaha illa allah laa maabuda bi xaqin illa allah mooy yàlla dafa am mbindee fi am yàlla moo am ak li nga xam ne yàlla subhanahu wa taala ko bind ñoom ñu ne dara amut def amutut ci bind rek moo am yàlla subhanahu wa taala moo bind lépp am melokaan melokaanam yooyu noonu dara du ca mbindeef kon leeru yàlla du mbindeef leer ga mu bind mbindeef la waaye leeru yàlla du mbindeef kon jël ni yàlla santal ci leeram lu leneen di jule mooy yeneen ku di yàlla la la yàlla doon dàqal bañal nasaraani bañal ko yahuudi yàlla lam doon bañ gene asamaan xaw naa xotteeku suuf si mab ñu moom lañ jël def ko nekk jël islam mooy jël yàlla jël mbindeef yàlla def mu nekk ko juzu yàlla loolu mooy li wax rek ñoom mooy xaaj wala rek léegi damay taxaw foofu leeral tuuti parce que audio bi dafa xaw a gudd après ñu yeggali ko eh, dafa wax ne mu ne loolu buñ xoolee mooy ñun li ñuy wax ñun suñ istilaahaat masalan xam naa jawaa jawaahirul eh, nu mu tuddati eh, jawahartu kamal la bëgg a wax waaye dégg leen mu ne mooy li ñuy wax ne xaynil xaqil tatajalla fii fiihi gis nga tatajalla fii huruusul xaqi tatajalla fii la xaqi loolu fan la am tatajalla minha huruusul xaqaayiq aynil maarif al aqwam loolu la bëgg a wax xamu ko kon da ngay weddi dara te yow li ngay weddi yow sax xamoo ko te nit ki balaa ngaa weddi dara war ngaa fexe ba xam ko ñaareel bi ci tegee mu ne li nga xam ne loolu lañ gëm ñun maanaam ñun dañoo weddi ne ba dañoo gëm ne yàlla rekk fi na ñoom nag dañoo gëm ne yàlla mu ngi fi ak mbindeef yi parce que laa sharika lahu maanaam yàlla amut bokkaal yàlla ak kenn wur koo wax dañoo dem ba ne sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn waaye dafa ñëw ne ko bu taxutoon nag yàlla ak yow yonent bi ne ko bul wax loolu nel bu taxutoon ak yàlla rek ak ja la ñuy bañ ñoom ñu ne yàlla ak mbindeef yi léegi nag ki jàpp ne yàllaa fi mbindeef yaa ngi fi yàlla moo man lii mbindeef yee man lii yàlla mooy def lii mbindeef yee def lii kooku loolu la jàpp ñun ñu jàpp ne yàlla rek mooy jëf ndax wa ma tasaauna illa an yasha allahu rabbul alamin ñun ñu jàpp ne dara xamut lu dul yàlla dara xamut gi mooy lan lii am du lu am parce que lii day ñàkk doomu aadama bi bu dundee li ci gën a gudd at manta àgg ñaar téeméeri at ci jamono bii ñu toll nga dee kon amoo woon ñu gas la suul su yàggee yax sax dootuñ ko fa fekk lépp dafay jeex kon yow amoo woon maanaam garab yi ngay gis miir yi ngay gis lépp looy gis nit ko fi taxawal doomu aadama lim taxawal loolu amut taxawal gim ko taxawal nag taxawalu tawahum la xam gi ma am moom doomu aadama xam ak tawahum la loola tax bàyyi ne wujud bii wujudu tawahum la wujudu tawahum mooy lan mooy dañoo lu ñuy def def loo ne am na te amut parce que lu tax amut mooy daf fi jóge mooy nekkut léegi na nan la ñuy def ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax jim ne kaana allahu la ma maahu yàllaa fi nekkoon nekkut fi woon dara sayyidina ali ibn abi taalib ne ko wa huwa attal aana ala ma kaana ni fi yàlla nekkee woon te nekkut fekk dara ba léegi noonu la fi yàlla yàlla nekkee te nekkut fekk dara mboolem mbindeef yi nga gis yëpp ak lépp loo xam ne yaa ngi koy xool loola yow yaa jàpp ne am na rek waaye amul te it bu la yàlla naree dimbale bàyyi mu ne bu la yàlla naree dimbale dafa lay uññil kiiraay yi nga génn ci tawahum googa ba nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala daf lay uññil dëgg gi su boobaa duur sax yow yaay gisati su boobaa kan mooy gis yàlla mooy gis loolu tax Abdul Qadir Jilaani wal wasfu masalun wa anhu lil uyuni alamina hawaijun yàlla am na ci gannaaw tur yeeg melo yi melokaan woo xam ne bëti mbindee fii mënuñ koo gis iyaaka an tastabida al amr fa innahu qaribun li man fi l aq taabia bul soril mbir mi ndax fa laysa yura rahmanu illa bi aynihi wa saalik hukmun fi l haqiqati waaqia bëtam yàlla mooy gis yàlla alquran ñëw ne laa tudrikul absaar wa huwa yudrikul absaar bët yi mënuñ koy jot waaye moom mooy jot gisi loolo boo xamul sëriñ sëriñ sëriñ doo ko xam te boo xamul loola nag munoo mucc ci bokkaale looloo tax moom mii dugg na ci bokkaale ndax nee na yàllaa fi nekk mbindeef yi ne fi boo ne yàllaa fi mbindeef yaa ngi fi dafay ni yàllaa fi mbindeef yaa ngi kenn ku ne am coobare léegi nag déglu leen ba tey ñu continuer yéeféer yi waxee mu xamal leen mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ñu kan mu suñu borom moom la bàyyi gis ñu màbbal fii qul huwa allahu ahad yàlla kenn la keneen ku dul yàlla doo kenn allahu samad ñëpp ñëpp soxla yàlla yàlla soxla leen ñun dañoo soxla lekk soxla naan di nelaw di sonn di dem toile nga yàlla wallahu mustaan nga ne gaanu wàll yi sax di génn ñu ay yàlla la allahu mustaan ak matali nga ne mooy ak mat kaburat kalimatan taxruju lam yalid walam yulad yàlla dara bawut ci moom lépp lu ñu jur doo yàlla lépp lu jóge ci leneen doo yàlla lam yalid lépp loo xam ne da am luy jóge ci yow doo yàlla te lépp lu fi tudd rek am na fu mu jóge am na luy jóge ci moom lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad amul lenn lu yem ak moom da nga ne déedéet lenn amul lu dul moom yàlla bu ne amul lenn lu yem ak moom mooy am na leneen waaye loolu dafa bokkul ak yàlla suñu borom di jëlaat di weddi sànni fële di nar di dajale di eh, su ko defee dégg ngeen ko kon maanaam nim firee qul huwa allahu ahad nee na maanaam pas-pas bi nga xam ne yenentu bi biñ ko laajee yàlla yenentu bi loolu la jàngale Baay Ñas loolu la ñoo maam ak a ñeme yàlla Baay Ñas radiyallahu anhu kay li yenentu jàngale loolu la ñëw dëggal bal Baay dafa tasaare njàngaleem yenentu alayhi salaatu wasalaam ndax waxoon na ne man Cheikh Ibrahima Ñas radiyallahu ñaari sëriñ laa am sëriñab saayir bi mooy alquran ak sunna gisuma ku ma ko gën a dégg sëriñab ñaareel bi mooy Cheikh Tidiane du tàqale koog man waxoon na Cheikh sa Niass radiyallahu anhu man araada an maa ma'i fal yasluk fii tariqi yi képp ku bëgg a nekk ak man soobul ci suma yoon wi lu mu ca teg bi imtisaalil amri wa ijtinaabi nahyi ngay jëfe ndigalu yàlla yi te bàyyi bàyyi tere yàlla yi bañ na ko ba wax moom Cheikh Ibrahima ne képp koo xam ne du jëfee ndigalu yàlla du bàyyi tere yàlla yi kooku na ngeen xam ne même bu ne ci man la bokk bokk ci man yow nga ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu moom dafa ñëw màbbul yonent bi andi woon qul huwa allahu ahad yàlla kenn la dégg nga allahu samad mu ne yàlla mooy kiñ sox ku sox ki dégg nit ñi ñépp ñoo soxla mais yàlla soxlawul allahu samad sax firiwut loolu allahu samad mooy lan mooy asamadu mooy ki ñépp jublu te moom jubluwut ci kenn yàlla fan lay jublu yàlla buñ nee jublu na boor bii kon am na boor bu mu wan ginnaaw ñi ko jublu nag moo lay wanal ne ñooñu tawaxum rek lañ parce que ñooñu man fuñ jublu wan nañ ginnaaw fa ta des ñooña li nga wax dañuy lekk dañuy nelaw dañuy naan dañuy nangam loolu wujudu tawaxum la moo film cinéma bii ngay seetaan wallahi benn la gis nga àdduna bii li fiy dox xam nga wulli yàlla bi nu mel ak ki dawul wulli yàlla mooy wulli bi moom lañ tegal bande ba mu seetaan ko mooy ki xam lépp ci ësal masalan tey mu seetaan film bi xam ne acteur bi dana jaar fii danañ ko gaañ fii dana daanu fii waaye fii lay jeexee moom seetaan na ko ba noppi mu ñëw nag toog ak yow mi nga xam ne mosuloo ko seetaan mu naan la film bii de ñuy seetaan xam nga yeggaguñ fa bu ñu demee gis nga acteur bi bu génnee fii dana romb benn place place boobu muy dem dana am ko mu fa fekk kooku dana ko jam nga naan ko laa yow yaa ñeme yàlla yow ci bu ngay wax ci yow la nekk xay bu moo tax bàyyi mu ne al xaybu xaybaani xaybu alladi xaaba anka wa xaybu alladi xibta anhu léegi nag kon loolu du xaybu parce que moom daf koo xam lim xam la lay wax léegi nag yow mi ko xamut da koy wéddi yaa ngi koy doog a seetaan da ngay concentré wu rek ki ko xam nag mën na la ko nettali loolu mooy nittu yàlla bi loolu la uute ak ki doonu nitu yàlla mu ne lam yelit wala mu yulut yàlla mooy koo xam ne dara jógewut ci moom yàlla dara jógewut ci moom yàlla lu génn ci moom yàlla kay li ñuy wax mooy boo ne dara jógewut ci moom rek ne dara ci moom su fekkee dara jógewut ci yàlla dara génnut ci yàlla kon dara new fi lu dul yàlla léegi li fi ne fan la jógee kon bu fekkee ne maanaam bu fekkee dara jógewut ci yàlla yow li nga jàpp ne xam ne loolu fu mu jógee masalan ñaar rek a mën a am benn yàlla moo fi nekkoon suuf ne fi kon suufam fi woon moog yàlla yàlla jël ci suuf bind doomu aadama kon suufam fi woon moog yàlla kon yàlla njëkkut fi suuf kon duutut awalu wala nga ne yàlla moo fi nekkoon leer ne fi nga ne leer mbindeef ak yàlla la leer ne fi su fi leer nekkee yàlla ne fi kon yàlla duwut awalu moog leer a fi nekkoon yàlla jël ci leer bind ci nit su fekkee ne nag gëm nga ne yàlla suñu borom subhaanahu wa moo fi nekkoon te booba dara xamagut asamaan amut suuf amut mbindeef amut ajjana amut safara amut lawul mahfuus amut xëlimba amut dahaa amut nit xamut jinne xamut malaaka xamut dara xamutoon kaanallaahu laa sey an maahu yàlla fi nekkutoon nekk nekkoon nekkut feet dara bu dee gëm nga lool kon wax ma li fi nekk fu mu jógee boo nee yàlla ci suuf la ko jëlee rek ma ne la yàlla suuf suuf fu mu jógee boo nee ci asamaan la ko jëlee ma la fu asamaan jógee boo ne ci malaaka la ko jëlee ma ne fu malaaka yi jógee boo ne ci leer la ko jëlee ma ne la fu leer jógee kon lu jógewut ci yàlla am na ndax lu génn yàlla sax am na bal sax duñ ne lu jógee ci yàlla waaye lépp ci yàlla la jógee ci yàlla la dellu moo tax li muy jàngale minha xalaqnaakum wa fiha nuxidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra képp ku mos dara ci ilmu saw da nga xam ne yàlla boppam lay jàngale minha xalaqnaakum wa fiha nuxidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra léegi suuf moom fu mu jógee boo ma ne ci ndox la suuf jogee ndox moom fu mu jógee mbir yi du ay théorie comme ni ko jàppee yow mbiri xam-xam bu leer naññi la boo xam ne da ngay topp nitu yàlla mu xamal la ko soo ko xamut nag xamoo loo xamut xamoo ko soo xamee tuuti réere lu bari li nga réeree danga koo war a boole ci la nga xamut waaye xam lu tuuti ba pare bëgg a wax ne peeg nga lépp di weddi loola ak tumuraanke lay doon ñeel la kon maa ngi lay xamal na la Baay Ñas radiyallahu anhu du sa morom bàyyi say sëriñ du seen morom wax naa leen fi mu jaar ak benn baas Baay radiyallahu anhu ci xam-xam bu leer nañ ñi ay taalibeem ci bu leer nañ bàyyi ci leeru xaqiqa bu leer naññ leer ay taalibeem bi saa saairi sarin wa bi nuuri mubiin urabbi salikina bila sakkin wala raybi bàyyi ñas radiallahu fii ci réew mi mu nekk dafee tasaare xam-xam tasaare fi njub Seydi Ali Cissé kenn la ci bàyyi demal nga demal nga laaj ak njobootam waxuma moom dégg nga bàyyi mbay ñas kenn la ci njoboot ak bàyyi demal nga laajte ko ña àndoon ak bàyyi laa lay tudd ñenn bàyyi Omar Fati Diallo demal nga seeti ko Seydi Ali sise wax naa la demal nga seeti ko sëñ Daara Ousmane Ndiaye seetil ak njabootam dégg nga ñii nga xam ne ñoo waroon bàyyi maam Ibra Fall demal nga seet ak njabootam bàyyi ñi mu waroon daf leen yar ci sariya bañ leer nañ ba tegee ci sariya mu doog leen a yar ci xaqiqa bañ màndi moo tax misri yi ba mu ñëwee ba mu ñëwee ci bàyyi ne ko sa gaay toogaay bi daf maa jaaxal noppi gi lu tax waxuñ parce que ñenn ñi nag dañoo jàpp ne. fa dégg naa ko sax ci seen benn waaye muy wax ne maarifati yi fi Mauritanie wax ji bàyyi wax mu ne bàyyi def ne maarifaam bi Mauritanie rek la nekk loolu moom dara gënut koo nekk parce que maarifati yi fi Mauritanie ñi ma xam ñu ngi Mauritanie bàyyi dafa bëggoon ne boo bëggee xam ne bàyyi ñu ko xam avant ko si ari bu boo ko seetee gis ñoom seyxaan yi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Mouhamadul Misri ñoom ñoom gaajoo ñu noonu niñ daan taggee bàyyi ak la ñuy wax ci bàyyi nga xam ne dañoo xam bàyyi kon bàyyi bu ne maarifati fii fii Mauritanie tegtaluwut ne sama maarifa baa ngi Mauritanie waaye am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne sax maarifa baay bi moo nekk Mauritanie waaye su fekkee maarifa baay bi Mauritanie la nekk kon Sénégal amul maarifa kon ñi ñi fi nekkoon ñoom Baye Mbaye Niass ak ñooñu ñooñu jëlee maarifa kon Nigéria amul maarifa léegi Baye tegaat na ci ne mahabbati fi Nigéria sama mbëggeel mu ngi Nigéria su fekkee ne mbëggeel ak Baye gaa ngi Nigéria kon Sénégal kenn bëggut fi bàyyi kon Mauritanie kenn bu bëggut Baye moo tax léeg-léeg tamit wahabiste yi dana ñuy attaqué Baye ña fekk ci ñun la ñuy jaar attaqué Baye parce que suñu wax dañuy wax moo du tegee ci xam-xam dañuy bàyyi sariha bi ñu bàyyi teg parce que bàyyi ne na tasawuf ibaada la ak suud jaamu yàlla ak dëddu natiija bi mooy maarifatu billah kon léeg-léeg nit yab Baay Ñas radiyallaahu anhu fekk taalibe bii wax ci la ko yebee xam ngeen ne kii li muy wax ci sirul akbar fekkul ko ci sirul akbar parce que sirul akbar loo xam ne 51 paas la gën caa bëri yow nga ne 421 paas ci paas 421 mooy xamuloo ko léegi da nga dégg wax ji rek. moo tax nit nëbbu li ñu war a nëbbu li ñu war a leeral ñu leeral ko loola ñu dimbale rawatina ñi manta lay ñu bañ a dugg ci aw lay kon Baay Ñas radiyallaahu anhu lim tasaare mooy xam-xam ma ne naar boobu bi mu ñëwee ci Baay Baay na ko demal wër gaañi mu dem wër ñëpp bi mu ñëwee ne gaa yi nag ndeke dañoo noppi rek waaye ñu xam lañ xam lu tax waman naa la siral Mustafa ak sara samta Baay mu ne ku jot mbootam yonent bi da ngay noppi gis nga rëw-rëw ju bëri ji xaqiqa bi maarifa bi lii nangam sunna si nangam waaw sunna yenentu bi hadis nangam alquran loolu lépp wax ju bari jooju yëpp ñàkk xam dong la waaye ku jot mbootam yenentu bi alayhi salaatu wasalaam rek da ngay bëri noppi nag duut ne tekk de waaye booy wax ci dëgg rek ngay wax bu jeexee nga noppi ndax asaakitu anil haq kon bàyyi ñas radiyallahu bi bi ngeen xam yéen ñépp ne dafa bind na ba fi yar na ay taalibe taalibe yim yar teg na leen ci njub ak xam-xam jamono bii ñu toll nag jamono bi dafa tëradi te dafa lëndëm ñun ñi nga xam ne mataguñ taalibe ñun ñooñu ñooy oote na ay sëriñ lañ loolu moo tax nit jaaree ci suñ buntu jam yab Baay Ñas dafay yomb waaye Baay Ñas moom yabuwut ndax li leen di xamal ne Baay yabuwut mooy xam ngeen ne amul benn sëriñ bum jamono wanteek te joxu la ko cër Baay radiyallahu anhu amul beneen sëriñ buy dikk ci gannaawam te doo ko jox cër amul kenn kuy liir mbindam te doo ko jox cër su ngeen demee ci defar nit nag mu dàq lay defar nit li mu defar ci nit kenn xamul nu mu toll te ak defaram yemalul ku ci ay doomam waaye ku ko dégg sax topp ci ak ndigleem rek nga defaru kon jërëjëfe Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mbokk yi maa ngi jégalu ci guddal gi lii mooy liñ doon leeral ngir tontu Fadel gay di ab ebaadu bu saay-saay bu bon bu xamul dara di def benn silsila boo xam ne dafa wax ne dafay attaqué Baye Niass Baye Niass mbiram yépp layluhaa ka nahaarihaa léppi Baye Niass guddeem ak bëccëg ma yam ay kasetam a ngi fi bu leen neexee ngeen dem déglu ji dégg nga Baye téeréem yaa ngi fi liir leen mag ñam ànd ñam doon ànd sax am na ñu ci deeyagut ba léegi kon Baye mbiram du lu lëndëm ay nit nag ñu ñu sasu bees ci gannaaw mag ñi di oote leneen loolu la ñuy oote ñoom ñoom la concerné loolu yoonu Baye Niass new ci kuy jam na jam ñooña waaye bàyyi nag na ngeen ko dégg te bàyyi ko fàttali ko sey xanaa kon foofu la ñuy yemale waxtaan bi kanaa rek di tontu benn laaj boo xam ne dañu ko laajoon Eh, masalan maam alaaji Abdoulaye Niass bi mu génnee àdduna kan moo ko jullee loola ñu bari dañ ciy xaw a gàgg eh, ndax dafay am ñoo xam dañ naan Amadou Boucar la waaye déedéet ki ko jullee mooy maam xalifa Baye Niass daf ko waxoon ne ko su ma gé eh, ala alaaji Abdoulaye Niass daf ko waxoon ne ko Khalifa su ma génnee àdduna nag nag ma jullee yaa fi gën a man a joxe cër waaye bul jox kenn mu jullee ma jullee ma xam nga moom moo ko yar moo tax mu wax ko loolu mu ne ko ñaaral bi ci tegee da nga fexe ba képp kuy tux póon bu mu bokk ci mbooloo maanaam bu sa sàppe bu njëkk ba moom bu mu ca bokk waaw kon gis ngeen ne tux lu bon la kon ñépp képp kuy tux nanga nga moytu tux mu am nañu ci yokk sax ne wax na ko ne ko maanaam ñeen fukki nit ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci sama kanam di ma jullee na ñépp nekk ay xaafisul quran kon mag ñi dañ doon sàmmuwante bu baax ak lislaam doon ci yar seen njaboot yaakaar naa ne yar sa njaboot nag bane na la jullee loola lu am solo la ndax fekk na nga am kóolute ci moom kon yàlla nañu yàlla mayal fayal maam Khalifa ñas Euh, waaye yàlla nañu yàlla fayal alaaji Abdoulaye Niass moom mi nga xam ne moo ñu indil tono ju mag yi mooy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu su ko defee mbokk yi foofu la ñuy emale waxtaan bi di wax fadeel na ko bàyyi ñas oote wut ak kéeféer Baye Niass ak ngëm yàlla la ote bàyyi ñas oote wut ak réer ak xam la oote Baye Niass ootewul ak ndëng ak njub la oote képp ku ngeen gis mu jaar ci leneen lu bokkut ak la bàyyi doon oote daleen xam ne moom la maa ngi ñaan ngeen ñaanal ma yéen ñëpp ma nekk taalibe Baye képp koo xam ne yaa ngi may seetaan dee ma ñaanal ma nekk taalibe Baye man loolu rek laa soxla xam naa ne mataguma taalibe waaye bëgg naa doon taalibe Baye Niass soxlawuma leneen lu doon taalibe Baye Niass yàlla na ma ko yàlla def te def leen ko yéen képp ku ko bëgg yàlla na la ko yàlla def ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam seen mbokk la woon Cheikh Mouhamadul Habib Ndiaye alkaymor